أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا يماثله عدد النجوم وقتل البهر والديم ثم الصلاة على مصطفى محمد ثم الصلاة على عين نبوة من قد جاء بالأمن والإسلام والأمم مولانا رسول الله أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد هاي فهم وقل بيته فأعمالنا بين القبول وردها إلى الصلاة على النبي محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من قدر عظيم يا همة الشيق فاهضي أبدا ألفا لدى الكل مغفوزا من الزلل من الزيق واللهو والشيطان والخطر بين القرائق ومنيبه بالأمر من الأستاذ مغوي ma ne kun adimi salaata na nga fexe joxe julli del julli ala nabi muhammadin del saxal julli ci nitul muhammad sallallahu alayhi wasallam fa qabuluha nangu julli ci nitul muhammad xatman force la boo jullee ci moom ñu koy nangu soo laabee ñu nangu ko boo laabu ñu nangu ko soo moyee ñu nangu ko soo moyee ñu nangu ko fa ahmaaluna jëfi bañal qabuli wa raddiha am na lu nangu ak lu nangu jëf yëpp la jëf bu nekk am na lu ñu jël ak lu ñu jëlut ba mu des nag julli ci yonent bi Muhammadu salaam del bëri loo julli ci yonent bi Muhammadu salaam dégg nga wax bi de del bëri loo julli ci yonent bi Muhammadu salaam dégg nga wax xarfu daal ci dewaa insite bàyyi tàmbale mu ne bulitu bi hubbil Mustafa al xadmi ahmada abil kawni wala axlaaqi faran wa maxtada hmm? ataani hawaahu qabla an arifa al hawaa suliitu bi niraani siyaaqi ahmada xaliqtu bihi wa naasu fi sunnati lkara tamatatu minhu dahra id kuntu mufrada bulitu dañ maa na too man bàyyi bi hubbil Mustafa ci bëgg yonente Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga démb bàyyi waxoon na ne qadaaliyal qaabil hubbi xidman mata qada mahabbatu taal haashimi wa qad mada qadaaliya kii atte di dogal moo yonent la moom moo yàlla moo dogal man bàyyi damaa bëgg yonent la Muhammad du man waaw du man maa toog rek bëgg yonent bi yàlla moo dogal ne man bàyyi damaa bëgg yonent la Muhammad loolu nag dogal la bu yàlla dogal jeex na du ma bëgg kenn tur Seydina Muhammad alayhi salaam am na ko waxoon démb ci bàyyi misiri yi mu ne bulitu bi hubbil kat mi katamtuhu fa hayya ma bi hakada yafaalul katmu wa ansada lisaanu xaali minni munshidan katamta hawa hatta adraka bikal kadmu mooy li waxoon sànq tii ñu añ dafa waxoon ne mu ne bulittu dañ naan na too bi hubil mi ci bëgg bàyyi laakin waaye katamtu hu dama ko nëbbu nag di ko jëm a nëbbu fa xëy ja mbëggal bi moo yëngatu jeqi fuddu mu ne hëkkata yafaalul kadmu bàyyi nii lay def bàyyi fu mu nekk du ma mënta làqatu gis nga benn bàyyi ñees bu nekkee ci kër soo bëggee mu màgg soo bañee mu màgg wax naa ko sànq rayal kooga wala nga génn kër ga waaye benn taale baay bu nekkee ci kër nga ne garaaw moom kenn la hmm. bàyyi ko ñaari fan nga xool hmm. ñëpp ay nekk taale baay benn rek mu mën a am nga rey mu dee hmm. mu toog fi wala moo génne ko sa kër am jàmm te xale yi ragal mu ma laa muñu xaal di wax ne yaa ko tey nëbb nga ma gél gi ba ma gél gi mujj lor la ndax loolu loolu lor la mooy mu génneel boppam fekk génnewoo ko bàyyi waxoon na dem mu ne siqul hubbi asirun katmuhu indal malaay mbëggeel bu diisee ci xol kenn mënu koy nëbbu ci mbooloo mënu nekk lawla alhawa lam turiq daman ala talalin wala ariqt li dikri lbaani wal alim bu taxatu nag mbëggeel doo gis kenn ku ñëw ci benn pàkk rek di jooy boo doxoon ba mët na bàyyi ngay jooy jooyoo pàkk bi de bàyyi ñees mi lan jumaa ak kër ga moo tax di jooy hmm. ayaxtubu sabbu an alxubba munkatimun hmm. maa bay ne mun saji min min hu mu tarami gis nga mbëggeel mun ñàkk hmm. bàyyi ne su mu ne wala bu sëy mu ne mbëggeel bu demee ba toll ci xol buy daggati di génnee ronkoñ hmm. ak xol bu jeex ak ronkoñ yu tuuru mu ne loolu kenn mënu koy nëbb hmm. mbëggeel kenn mënu koy nëbb moo soo bëggee ko am ni Cheikh ma profité foofu soo bëggee ko am ni Cheikh Ibrahim Niass bul nëbb sa mbëggeel moom waxal ba ñëpp xam ko ndax bàyyi moo ne ala fashhadu bi anni uhibbu muhammadan وأبقد كفرانا كنار تلهب على واوي فاسألوا نين سيرين بولومي بأني من شي إبراهيم أحب محمدا بغي بقين محمد الله عليه وأبقد كفرانا دما بن كفر كنار تلهب كم صبر رك لوم جون رماسكو من بقوم كفر ني قد استرق الهادي فؤادي وقلب حق بقلبي دواما حالة السنق والمنقي فكان معاشي وانتعاشي لذكره فقول جهارا إن برها مقد هاسخ suma lépp dama ko labal seen tal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ما bàyyi amatuma damaa jeex te loolu wax na ko démb watala abdu وما هو إلى المصطفى للمناقل وما هو إلى أحمد ومحمد وما هو إلى ما وراء الأقاويل يلنت محمد موي سما لك موي سما نان موي سما فسو غور موي سما يون موي سما جوار موي سما اوتو بي mooy tali bi mooy mooy asamaan si mooy suuf si mooy lépp ko mooy yonent Muhammad alayhi salaam yéen ñëpp wax leen ne bàyyi moo bëgg yonent la Muhammad kon loolu mbëggeel la bu wér jëru na bu de soo bëggatee nag diw ko am ni Cheikh Ibrahim laa ci jublu bëggu na bu bu liitu dañ maa na tooman Cheikh Ibrahim Niass bi hubbil Moustapha ci bëgg yonent la Muhammad alayhi salaam bi hubbil Moustapha al xadmi ci bëgg yonent la Muhammad bi nga xam ne mooy al xadmu mooy xaatimu nubuwati mm-hmm. ki tëj yonent yi kan la xaatim nabiyina mm-hmm. mooy sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahmada ah, ko gëmee ko mooy ahmad gis nga moom wax nii mm-hmm. du yonent bi nga xam ne moo penkoon Makka yi déedéet yonent bi Insa doon junji ne yaati min ba'di ismuhu ahmadun kooku lay wax mu ngi wax ci maqaam yonent Muhammad moo tax bàyyi bul comparé bàyyi ak gars yi de bokkuñ tagg de gars yi dañuy wax bëri rek ne yaay mu ko ëmbee moom ko nàmpalee bàyyi de buy wax ak yow doo dégg mu tudd loolu dana wax ba jeexal te doo dégg mu tudd loolu nàmp ak ay fer ak ay yooyu mm-hmm. bàyyi ngeen gis mu ne yéen ci ba mu ba mu dee ñu sul ko moom sulu yéen ci moom mukk yéen ci deewul bu du baax mm-hmm. waaw bu deewoon ataay bi kenn ko naan doon mm-hmm. ndax ataay bi koy sédd la yonent bi ah ataay bi la yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waaw ah. yàlla mooy joxe ma naa sédd la koy sédd la kan la koy la yonent bi la abil kawni hmm. mooy bàyyi kawni bi de hmm. al axlaaqi mooy bàyyi jikko yi bu la neexee hmm. kawni bi kuy bàyyi kawni bi mu yonent la Muhammad sallallahu alayhi ndax moo wax ne inni min allah man rek maa bàyyi ko ci yàlla wal mu'minuna min nii mindee fi yëpp ci man lañ bàyyi ko wal axlaaq mooy bàyyi jikko yi moo wax ne bu'istu innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaqi man dañ maa yónni ngir ma mën a mottali jikko yu baax yi kon ki ñëw ngir remplacer jikko yu baax yi kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi faraan mooy dégg nga bànqaas bi peer bi nii hmm. yonent bi la hmm. wa maxti daa muy dàtt gi hmm. mooy banqaas yi mooy tàdd gi mooy reen mooy bànqaas bi ahlan bi chahril mawlidi zakarana bil mahtadi aslil usuli sayidi habibana al mubajire loolu bàyyi waxoon démb moo tax bàyyi gàmmum ak gàmmu gaa yi bokkuñ de bàyyi ngi mu ne ahlan bi chehril mawlidi maa ngi wax bisi maa maa ngi wax naa maa ngi wax bisim bisimila mu comme ni ko suñu bopp laa di waxee bisimila mu bisimila maa ngi wax bisimila mu weeru yonent Muhammad sallam weer woo xam ne bu ñëwee zakkarana ñuy fàttali bil maqtadi suñ cosaan bu ba cosaan bi la ñuy fàttali cosaan bu nekk bi mooy fi lépp bàyyi ko la di fàttali اصل الاصولي توساني توساني سيدي موي سانغ بي مو وانا انا سيد ولد الادم ماي سانغ ليپ لي مينديف ولا فقر واي فغور موكو نان لا باي واخون وما الفقره الى العبوده لم يرن سواها وذلك الفقر فقر مقلد وما فقره مؤمن محمد فغور يوت الى العبوديه لرو نيامل جي ndam mu nekké abdullah lool mo ko gënal mo nekké saydul xawmi ba mu nekkee saydul xayni saydul xayni wa abdul ayni mooy sangab lépp lu yàlla waaye mooy jaamu yàlla ba nag yonent lu ma xam ne li ko gën a neex mooy moom nekk jaamu yàlla kon nag ma faqaruhu il ubudiyatu lam yurum siwaha matu sàkk lu nekk njaameel ba dalika al faqru pogore googu muy mu xaladu mooy pogore gi sax di am place wa maxtida ak datt gi mm-hmm. ataani dikkal na ma xawaahu mm-hmm. ma géel a génn tal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. kañ la ko dikkal yow bàyyi mu ne qabla an ahrif al hawa laata may xam ba de li may wax nii du fii ci alum asbaab bi déedéet te dana wax sànq ne li may wax du fii ndax bàyyi bu may bëgg yonent la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam booba benn lemmee ko amugutoon benn lemmee ko amugutoon gis na bàyyi wax na benn leetar boo xam ne nee na ay junney junney yàlla ak may laaj na ma yow bàyyi fa bëgg a wàcc foofu fa la nekkoon bu ay junne junne àll la wax bàyyi ne ko tànn naa Sénégal loolu nekkul tey de dégg nga wax bi nekkul tey de mu ne mbëggeelam dëkk na ma qabla an aarif xam mbëggeel de su liit man bàyyi dañ maa lakk binniraani siyaaqi ahmada ci safaraay bëgg yonental mahamatulahi salaam mooy man dañ maa lakk ba ma ñor xomm xomm mooy su lépp rek man ta bëgg kenn ku seydina mahamatulahi salaam an liqtu bihi dama aju ci moom mm-hmm. yaa gën a du tey mm-hmm. wan naasu nit ñi fii sinitil kara ñi ngi ci ngëmantu réer mm-hmm. ñëpp ngi ngi ngëmantu réer te bàyyi waxoon na ci bi wax bi ne Seydi Ali santal maa ngi dëkk boo xam ne kenn bañu ma fi ñëpp bëgg nañ ma waaye mu teg ci nag bi xalaabistana xaal maa zaaru fi nawmihim masakina maa arafu wa qaasutan ahlu kawlax uutee waa Sénégal ñoom ba léegi ñu ngi seen nelaw ak rang yi xamuñ kuy bàyyi mm-hmm. rawatina waa Kawlax waa moom ba léegi xamuñ ko mm-hmm. wa an ba'di ahliha nastaatu minhum barakat mm-hmm. wala yara fi haraka am na ci lenn ci waa Kawlax man bàyyi maa rocc su ñoom barke maa rocc su ñoom barke dañuy yëngatu ba dee dañu gis njëriñ ngir ñu xam rek na man bàyyi maay xel ba Cheikh Tidiane waaye te ma tant minhu dahra may bànneexu ci yonent Muhammad bi rek jamono xam nga dëhru huwa allah laa tasabu dahra inna dahra huwa allah lii nag falaa mën a yam bu leen ngañ jamono ndax jamono mooy yàlla te bàyyi mu ne maa ngi bànneex ci moom di rek jamono te xadis ñëw na jamono mooy yàlla loo mën a dégg loolu te xaqu ba de hmm? is kuntu mufrada fekk man kenn rek la woon booba kenn nekkul ku ma yàqal sa xaqu ba ba mu waxee kuntu rek moom yàlla ba mu waxee kuntu te bàyyi wax ne bi kan ziyati aw kuntu qabla taaruf bi boobu la woon mm-hmm. taxaraka min sa sirri ma kaana sakina du tayyi mm-hmm. te mu waxee kunt la bàyyi ñëw nanaa gaay mu ne allahu muhammadu ahmadu ak ibrahim muy kunt boo ko isaabee jox la kunt mm-hmm. kunt quatre cent soixante-dix la quatre cent soixante-dix nag boo ko isaabee muy jox allahu muhammadu ahmadu ak ibrahim muy quatre cent soixante-dix hmm? boo gee xool ko dégg nga وزهمت في وزهمت في هذا الزمان وإنني لفي غيرة من يروم محمدا وزهمت nag ni boo xeex ma dem ba alimu asbaab bi taxaw feeñ bi taxaw lépp leer ñi boo xeex ma ne ma yow bàyyi dañuy booxante yow de waaye wa innani xamal na man Cheikh Ibrahim Niass la fi xiiratin aji fiir lool mi man ci ka nga xam ne Muhammadan mu ngi sàkk bëgg yonent Muhammad man du ma ko may dee benn hunt ndax du du du du man ak de Hmm. loolu nga dégg mu ne wa in sabuxuuni bil xaridi hmm. fa inni bi xubbi rasulillah ji du saqib hmm. su ma gars yi di xëccoog man su tagg yi daan naa jël Muhammad kii naan tagg naa ko ma ne ko d'accord naa jëlal waaye mbëggeel gi maa si jiitu ñëpp du ma xëccoo kenn ci loolu walakin ni waaye jalaytu qabla sibaqihim jalaytu man damaa jiitu gars yi qabla sibaqihim njëkk seen rawante hmm. njëkk bi wax rawante man hmm. jitt naa leen hmm. bàyyi na ne wa sabqu yuhrafu al midmari mu ne raw gi ñi ngi koy xamee si dernière ligne ba te man avant ñiy wax gaay ñi rawante man jitt naa ko rawante wu man ak gaay kon bàyyi bu ko xëcc bu bul tëkkalee bàyyi gars yi bokkuñ waqan tabriz al tabrisal royaat ak maas gi li ahmada ñeelintal muhammadullahi salaam waaw maas gi hmm. lépp lu mën a jëriñoo si yonentu muhammad si hmm. hmm? man lañ koy jëlee man lañ koy jëlee man lañ de ala walim laa lu tax loolu nag du ko am ndax wa izzul abdi tedd ngeeg jaam bii izzu malikihi mooy tedd ngeeg sangam nga bàyyi waxoon na ne وقد علم الأقوام أني قديمه فوصبح حبيب الله يلفى بوصليا وقد تدق دق دق لا يفري علم الأقوام من ديف من قمنا أني من شيخ إبراهيم قديمه ما يبكي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصل حبيب الله جوكو ينتل محمد يلفى بوصليا ينقي أمي جوكو من أمنا فنان موخان تسمى رجال مقدم وإنني أسابقهم ما إن عيسو فيك أسابقه amna na hmm. hmm. ay goor ñu mag ñu tuddu won ñom ñoy qadim waye ñom dara rawante ñom tama leen jitu amna na ay goor yu mag yo xamne ne hmm. ñoo fi waxon fi ñom ñoy qadim bi amna na amna na gars yoo ñoo xadim xam nga war xam nga yow waaw mu ne waaye man dara rawante ñom tama leen jitu waye kenn mu tasamar jal qadimi jàll xadimi <laughs> ah, bëri waaw hmm. ah, man maay bëgg néeg maay bëgg néeg ah? hmm. Hmm? de loolu leer waaye insul abdi walim laa pourquoi pas lu tax loolu mënul nekk nag ndax waaye insul abdi tëdd ngeeg jàmm bi insu malikihi mooy tëdd ngeeg sangam fa taw yamini lemek sama ndeyjoor kaw nu ja kaw ni bi abdan musawidan jàmmuñul bi lem na mooy yàlla lem na kaw kaw ni bi yëpp jox ko jàmmuñul bi ila hmm? lem na kaw ni bi jox jàmmunul bii dégg wax bi alaa dëgg-dëgg yaa rasulallahi hmm. e eh, yow yonente li muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. warfan si nga yëgati samay tawat te waxoon na ko de laan rasulullahi yan yi ci li mawlaahu fa inni nahwa kulle maqsadi faqirun waqirun gaarimun laysa li hiila Mhm. la dayhi wa huwa doomu jaay muhammadin ñun ñëpp ñu ngi taxaw ci buntu boobu de mhm. ñu ngi ñaane yàlla ci mbuutum Cheikh Ibrahim Niass ñun mhm. moo ñu gën a jege Baay Niass mu ne xëy na léegi nitul muhammad dégg samay tawat mu jël tawat yëpp yóbbu ko yàlla suñ borom xam nga booy ñaan da ngay ñaanee ci ki la gën a jege mu ngi mel ni yow nga nekk Ndramé kaal sa maire bi nga war a tawatee ñi mën lay gaaw a digg maire bi wax gouverneur gouverneur wax préfet préfet wax ba ba mën a yegg sa tawat kii sa sa sa maire di bëgg a tawat ci président bi du sotti te bàyyi mu ne yàlla muy jàngal ne wasila mënul ñàkk yàlla moo wax ci ne ñoom gars yi suñ mooy yàlla bàkkaar yu bari lool mais ñi ñëw ci buntu yonente Muhammad jéggul yàlla yàlla jéggal leen boobu dégg boobu de mu ne mu ne ala ya rasulullah hmm. e yow yonente Muhammad war faa na nga yëgati si kaay di samay tawat hmm. ilayka jëm ci yow xaali suma mbir jàmm mm-hmm. bi mbiram yëpp ci la jëm mm-hmm. maataral ab ta so yuda jàmm bi gisul kenn ku may sangoo xoo ku may def sang ku du yow mm-hmm. du def kenn sang ku du yow yow rek yaay sangal da wax na ko ilayka wa ila farakaibu lam tasir lisaniya talqun fiika wa kullu nu wama am na feneen fu nga waxee ne ko may gu tukkiwut ci yow soxla ma ko yow rek yaa ma tax a jóg fa haaji sumay soxla ñu ne ko bàyyi ah kenn la déedéet mu ne déedéet wa haajul muslimuuna de ak mboolem soxlaa julli ñi nga bàyyi dum yaatoo xol moom xolom bi mu ne fi yàlla yëpp lañ lañ sul ci xolom bi moo tax mu ne dégg nga waxtu bu xabar bi dekkee sa ngay door a xam may kan xabar boobu mooy xolob képp kenn si ñun ñu ngi ko sul si Ibrahima Niass lu mu ñàkk ko xolom dekk rek nga xam bàyyi loolu may firi bi waxaajul muslimin ak mboolem xaaj ak mboolem soxlaay julli ñi axaltuhu laxas naa ko alayka jëm ci yow fa tifta nafsan Mm-hmm. yow yaay ki tey ba kan mm-hmm. xurran yaay gor boo xam ne musar ma dan da ngay des nekk gor mm-hmm. sa ngoreel gi du goreel guy nekk tey gor su mu mu nekk leneen yow sa gor gi moom gor rek la mooy da ngaa tabe danga baax yaay gor dëgg kon ni ko gars yi waxee yaay gor dëgg boo tag nit ko fonk dong ko yor yaay gor zamani talqul wajhi gayra mukaddirin waaw zaman rasulullahi gayru zamani wa taybata wa taybata xaydul wa taybat rasul xayru makaani am na foog ko bàyyi waxee mu ne jamono yonentul Muhammad moo gën si jamono yi mais taybaam nga moo gën mbooleem dëkk yi zamaan yi sama direk jamono man bàyyi talku wajin aji leer laa ci kanam doo ma gis tey ma leer kanam su may ñëkk-ñëkkalu am léegi nga gis ni tey mu am ay million foo ko gisee muy reede xaqataay suba nga xëy tey dépense bi jeex amul gerte caaf sax muy ñëkk ñëkkal di mer mhm. di fuñul fuñul yaakaar na ñaa ko def mhm. bàyyi na man man man man duma ñooñ de mhm. raqil ubayda abadan bi shukri isma turaqi gayruhu bi sabri yow yàlla na nga jaam bi toujours bu sant rek am na ñoo xam ne ñoom duñ sant de mais dañu muñ te muñ ci maqaama bi gën a xees la bokk muñ baax na may am lu ko gën muñ lu mu baax baax am lu gën wax naa la benn bés la ñaari sufiyaan ñoo dajee ci àll bi Mhm. kenn gi na kenn ki yéen seen dëkk lan la lan la gars yi di dundee boobu bu ñu amee bu ñàkkee mhm. mu ñoo ko ñun suñu gars yi ñu amee dañuy wax alhamdulilah mhm. bu ñàkkee ñu muñ ki laaj laaj bi dafa mer ba mer waaye ne ko lu xew ñu dama xam li nga wax sànq suñu xaji dëkk ba na la ñuy dundee xaja na la ñuy dundee xaji bu ñu amee sant yàlla bu ñàkkee muñ ndax muñ ñàkk fexe la ñoo <laughs> ko yéen def mu ne ko bu ñu xamee ñu wax alhamdulilah bu ñàkkee ñu wax alhamdulilah Hmm? wal absaran aynaaka la maishatan min al abdi fa huwa alhamdulillahi kulluhu ndax da nga gis si mbindeef yàlla yi man Cheikh Ibrahima su ma gën neex dund ñu ne ko looy lekk mu ne alhamdulillah loolu lay lekk man moo tax maa a neex gaa yi dund su ma yoon neewu ci xam ngi ñàkk am benn waaye ñëw na ci bàyyi ñes jox bàyyi alal ju bari fi mu taxaw rek bàyyi jël alal di jox ko sëy di jox benn jàmm benn benn taale bi na ko amul may waa ji mer nag mais ñi mut bàyyi ñes mu ñëw Seydina Ali ne ko ah ndey tey suñu moom tey moom li def jaaxaan na ma mm-hmm. ma jox ko xaalis bëri fi ma toog la ko maye mm-hmm. xool Seydina ak matam ka mm-hmm. mu ne ko yow da ngaa yaakaar ne yaa gën sëñ bi yow yaa gën a baax yow mi liggéey sa xaalis bi ci àll ba sori liggéey ko ba indi ko ci moom moom mu toog fi mu toog liggéeyu ci dara yow mi ko mën a jox kay fekk yaa baax jox ko ko moom war naa mën a gën a baax jox ko keneen <laughs> yaa gën a baax sëñ bi danoo baax sëñ bi de dugg na ci avion mu bàyyi benn waaye gis ko xàmmee ko nigérien la waaye booba punka la ko kilifa la mu jox bàyyi benn enveloppe seg boo xam ne seg ay millions ci nekk am benn xale bi jooy ci avion bi Oustaz baam Diop moo ko nettali dëgg la kun benn xale bi jooy ci avion bi bàyyi ne nii xale bi ak enveloppe bi mooy di xaw a nax xale bi ci enveloppe bi di ko xaw a nax ba xale bi téye enveloppe bi noppi bàyyi bee ko enveloppe bi bu ko béyee enveloppe bi waa ji ma leen bàyyi xaalis bi ñëw ci ab ñëw ci fi bay toog na ko ay millions ci nekk de bi mhm. bàyyi na ko alhamdulilah xam naa ko jërëjëf waaye da toog place am mu ne yaayu xale bi bàyyi ba xale bi nelaw mu jël enveloppe jox ko bay bàyyi na ko entu yi may naa ko ko jox ma xale bi may naa ko ko mhm. moom ngay dégg mu ne sifaari ilal haadi li dalika afrahu mhm. li xaayi xayl waraawu afrahu su may tukki man Cheikh Ibrahim Niass li may tax a kontaan ak bëgg mooy dajee gi may dajee rasulullahi waaye du xaalis bi wama londana ab xii fa xabha xiyaala london gi tax may jóg defal london muy ay niir tax may jóg man tukki mu ngir ay avion yéeg màkkaag déedéet man yonentul Muhammad mooy tax a jóg sallallahu alayhi wasallam waaye du du yow li nga yaakaar ne wax na ko beneen beneen bés mu ne ka na naa war na wax na fii gal guusi fii taybati min ahlina wa kuusi Oustaz Barham Diop mu ne dañuy toog ci biir palais bi bàyyi mu ne ah Barham Diop nam namu naa sama dëkk ya namu naa cause yi namu naa tey mi seen namu naa ko dina bàyyi te nekk ci ay palais loolu yombul de ba yow mi booy moon ci palais bu fii Almadies rek ba nga fàtte seen dëkk <laughs> am na xam ne waxtu bu ñëwee Dakar rek fàtte fàtte dëkk yi moom dem na ba gël cause di bàyyi xel moom mat na mat na bàyyi cause yi la fay ñu Cheikh Ibrahima zamani talqul wajhin suma kanam gi yëpp damay nekk ku damay nekk ku ku yaatu kanam mu xayru mukaddarin suma dara du nax aru wa axdu damay xëy di gontu daa iman ba jamono jeex lam ukamida du ma nëx nëxal ukamida mooy koo xam ne xolam dafa am jafe-jafe léeg-léeg gis koo xam ne du ree mukk moom foo ko fekk mu ngay fuñu fuñu rek te yow moomoo nit ñi mayoon nit ñi joxoon nit ñi looy mer mm. ah, na fexe ree bexe bég mm. nit ñi moomoo leen hmm? uqaadi sabuha mm-hmm. danaa passé ay ay ay ay zunnu yu bëri xenda mm-hmm. afdal mursalin mm-hmm. ci roon gën ci mindeef sallallahu alayhi wasallam waaye waman bi rasulillah képp ku am yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam nag lam yaxsa doo ragal jalma daa jafe-jafe jamono ku am yonent Muhammad jàng ko ko wa man takun bi rasulillahi nusuratuhu in talqaawul usdi fi ajamiha tajami wa man yaxtasim bika yaa xayril wara sharafan wallaahu xaabizuhu min kulli muntaqim képp ku am yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo dajee gaynde ci àll bi gaynde gi dafay ragal benn waaye dañ ko waxoon ne ko booy dox ci mbedd mi jàng ixlaas wala jàng ayatu kursi yi gaynde bu la bu la bu la jubi dafay ragal moom mu dox ci mbedd mi naan kursi yi kursi yi kursi yi kursi yi boo ko gaynde gisee daw ba daw dugg ci mbay moom moom gaynde gi ñu ne waa ji loolu jàng mu ne man dama jàng kursi kursi xoolal jàngu ayatul kursi kursi kursi loolu jàng mu ne ko yow boo jàngul ayatul kursi nan la affaire yi mel <laughs> dugoon kay ni dafay dee <laughs> lu muy doole alquran na koy gëm nag boo ko gëmee dëgg la te walla rasulullahi amri walam yësal ak baax yu saa yi du nii dahra fa sirtumuma jëdaa te walla méngoo na sama mbir de ki méngoo sama mbir di ma omat di ma dimbali di ma sàmm di ma wottu kooku mooy yenentu Muhammad sallallahu alayhi wasallam de mm-hmm. walam yezol dañu mukk mukk mukk mukk mm-hmm. yu saa du nii di ma dimbalee mm-hmm. dëhëri direk jamono fa surtout mujj man bàyyi ma jadaa nekk ku màgg tedd ndax ki ma dimbalee mooy yenentu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yenentu Muhammad na kum dimbale rek am dimbal dégg nga wax kum dimbale rek am dimbal hmm? te man dimbale mooy sidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam de wana dégg nga de wana ixtinaal Mustafa xaynu kiimiya faqad saara asban maahul milhi taawada mu ne yonente Muhammad laay sallam waxtu wu ittihoo suuf bu ittihoo mbir lu mu mënoon a soxla mu nekk aynu kiimiya wana ixtinaal Mustafa naga ittihoo yonente Muhammad aynu kiimiya lu ma jëm kiimiya yonente Muhammad tey bu tibboon fii suuf léegi na ko nekkal kiimiya mu nekk kiimiya ndax lu lu waral loolu mooy faqat saara mujj na xasban di di neex mil milhi ndox mu sab xorom taam wadaa mu dellu ca cosaan ba xam nga cosaan lépp dafa neexoon aslu kulli shay kaana taa'iran yenente li Muhammad dañuy toog ci benn benn peggu géej benn ñu ne ci benn ñu ne ci benn peggu dañu am ku ko jox ndox mu tuuti ndox mi sax bàyyi nee na mënta raxas loxo mënta raxas loxoom mu ne ma xool ndox mi gaa yi yokk ndox mi mu raxas loxoom ci ndox mi rek na nii ya Mm. loxo ya di walwali mm. di génnee ndox di génnee ndox bu ñëpp tiit mm. moo tax bu ñu waxee ndox yi bu ci gën waxal ne ndox mooy ndox mi balee ci loxo bi yonent bi amatulaay mooy ndox mu gën ci ndox yi topp nag maamul zam-zam ak yeneen ndox yi hmm? ak nilu misra dégg nga dégg nga wax bi de wala na nooy na nemm bairun gëlëm kaana boo xam ne sax ba nekkoon lu jafe gëlëm goo xam ne gars yi ñoo ko yar ay benn at mu xiif gëlëm ko soxor leen jël lu la Muhammad dugal ko ci gëlëm goo foofa gëlëm gi gis ko rek di ko fóon di fóon loxo yi sallallahu alayhi na at na ma na ma tàndarma dafa toog benn bés mu ne jox leen ma tàndarma ma ji ko ñu jox ko mu ji yëpp ci benn at mu meññ ba mu des benn tàndarma boo xam ne oo xataa moo ko ji woon ne dimbale ko rek Mm-hmm. yonent bi ne waaw ku ji bii omar ne man man mu ne man la xoon mm-hmm. xaw moo ne karaamaay feeñ damaa yaakaaroon ne da nga woon mu ne naa la dimbale mm-hmm. yonent bi buddi ko jiyaar ko mu topp gaaya ci benn at mu meññ tànnal ma dégg naa ñaari at bi ñetti lay am ko meññ waaw bi hmm? mus mi daa di aji dotteeku waa xutiqa goreel ne salmaanu salmaan muy salmaanu faris xam nga ko de mooy ki toogoon dégg ñu ne dégg gaa yi mi di wax Muhammad rek mu daanu si si gërëbu tànn la la na bib daanu gaa yi nag mu ngeen lan léegi mi mu ne tur tudd léegi moom daanu Seydina Muhammad mba gëla nga de ak ak foor ku bayeekoo nag si ma daanu deewoo suñ la waxee aarifi laay na loo xam ci biir cin tàng te lakkut wax nag hmm? ndax loolu maqaam yi kawe la nit yegg fa xam ci maqaam dana mbëkki miir toogaat te ko mbëkk da nga war a dee mm-hmm. waaye yooyu yooyu nag la yoo xam ne yow doo fa ne de mm-hmm. ba eh, salman bu may bu may béy ko si tànn mm-hmm. ne ma fa de tànn ma ni mu <laughs> ko daanu a dundaat waaye béy ko daanu di wax ak <laughs> loolu loolu ma xama bu fa yeggu dee bu ko créé de <laughs> waa na salmaanun salmaan bi shawiq habibina bëgg gi bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko goreel ndax dafa bëgg natal Muhammad wax ko gars yi yi ne ko yow tey jëroo dara hmm. Aboubacar romb ñu ne ko kaay ñu jaay la kii mu ne def bëgg sa waa ji hmm. Aboubacar ne ñaata ngeen ko jaay ñu ne ko yow kay doo fay baana ko hmm. Salmaan moomu moom mujj itam ba bokk ci waa kër Seydina Muhammad la Ibrahima yeneen bi ne Salmaanu minna ali bayti maqaam bu kawe la Salmaan ci ñun la bokk ci waa kër Seydina Muhammad la Ibrahima te kooku nag pourtant Salmaan nag africain la waaw ah, kii africain la Salmaan am na lu may ji ci maqaam dégg <laughs> walaatuna walaatunaaha hmm. dàquwante wut law malatu mujallada hmm. li may wax nii yëpp ci mbaaxu sëñ gën a Muhammad hmm. su ma feesoon ay mujalladaat yu bëri ay bibliothèque yu bëree bëri du ma yegg mukk dayoon damay wax nii rek na fa inna fadl rasulillahi laysa lahu haddun fa yonri baxanawu naataxum bi fànn yenente bi mbëggee dem amul fii la yem ay maqaamam amul fii la yem ay karaamam amul fii la yem ku nag làmmañ dafay lott ci mun koy wax li anna alladi li anbiyaay min xawaariqin bihi naa laha arsaalu xayran muhashada mu ne lépp lu yonent yi am ci ay xarbaax bihi ci moom yonent li muhammad naa la lañ ko amee xarbaax yu mën a am rek ñu ko amee ci moom al arsala képp kuñ yónni xayran ci yiw muhashada bu loo xam ne kenn mu koy tagg mooy mooy takk lu ñu am ci yiw yëpp ñu ko jëlee sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko bàyyi fa la mu ne déedéet kazaag noonu de karaamaatun li ahli wilaayati nga tax maa ñu ñooñ wilaaye yi mm-hmm. képp am wilaaye ku mm-hmm. yaa ngi jëlee Cheikhu Tiyaan yi mm-hmm. Cheikhu fan la ko jëlee Seydina Muhammad kon képp ku am wilaaye la yaa ngi jëlee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wax ji rek fa minhu ci moom Seydina Muhammad uniilu maa uniilu lépp lu ñu am ñu ngi ko amee ci moom képp ku am rek yaa ngi ko amee ci moom li ma daa ngir nga sant ko yow santal Muhammad de moo tax nga ustaas mu dégg nga fatahtu ayna ayna basirati mm-hmm. fa wajadtu kulla alxalq ayna muhammadin mm-hmm. hunaka ayna almatxu wa huwa muhammadu mm-hmm. walhamdu fawqa almatxi fa ahmid wa aqsidi dama xippi sama bët yi sama bët yi xol yi laa ma gis mboolem mbindeef mi ñooy jëmbinante Muhammad alayhi salaam su boobaa nag bu nekke noonu la aynal matahu ana kan mooy taggati koy tagg wa huwa fekk ki ngay tagg Muhammadu mooy Muhammad walhamdu sant gi fawqal mathi mo nek ci kaw tag gi fa ahmid na nga sant sayyidina muhammad wa aqsir jublu ko moo lay wara a ndaw mo moom yam affaire daal yonent muhammad dal lay wara a dal aya hmm? hmm? barun ya ngoog Ya kafi bi jay nabina li tur li tarsuq ubaydan ma yarumu wa tursida lol nak ñepp ñu ngi koy sàkku tey ñëpp ñu ngi def tawassul ci bayti bi aya hmm. barun e yow mi ku yalla wa ya kafi yow mi nga xamni yaay fegal jambi lepp lu ragal ku yalla bi jaay nabiyina ma ngi lay ñaanee ci mbotam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam li tar li tarsuq na nga wërsegal on bay den ñam si baye wa de yow yalla na nga wërsegal ñam si xeybu si tok mom baye wa de maa yorumu lepp lu mu nang na nga ko jox ñu de ñu ci min wa tursida ta nga jubal ko mu jub ko ci yow mooy duñ soxloo kenn ku du jàpp mm. li tak fiya an naa mm. maa ngi lay ñaan nga fegal ñu mm. woog fii naa fegal ñu dexra di rek jamono sayidi yow suma sang sayidina muhammad jamee shuruuri mboolem xay yi xad xadayta loo xam ne yow yàlla yaa ko dogal wa ay daata jooyal ko li nga dogal ne dana am ci ay nattu ay fitna maa lay ñaan nga fegal ñu ko ñun mën na ko yàlla mën na loolu de li mën a puna loolu de hmm? wa mudda yana nga tàllal sifaat yi bàyyi wax su may melo hmm. min sifaat yi ka tukkee ci melo yonentul mahamatullahi salaam hmm. salmadan di aji dàppatiku de hmm. am na feneen fu bàyyi waxee euh, bëggee nayonteeg Muhammad ñëwal suma kër soo ñëwee ci kër gi ki tëdd lal moom moom la habibi maayi fil bayti aw wasta balqa yi su bi mu ngi man ci biir néeg bi toog wala sax ci diglal bi moom la نك ورغام لا تمن دغي انا الذي علمته يوم هجرته ومني على فوق براخ بلحظتي بايس نانا ينت محمد موي غداي ماكو وخون مو غداي واي كي ايغون تي براخ بي ديم مان لا تان امول لولان لا مون ماكو وخ مو غداي مي ما ايغون تي كو براخ با براخ كو ايغون كو ايغون تي براخ baay bi ne man la lu xew kon baay yonent wala mau mau mau mau mooy mau mooy baay dégg nga wa kamil yana nga matal li arfani suma xam ak wa ilmi suma xam-xam wa sadida nga dëgëral ko ta nga joyal ko de da ngay dégg ñu ne tawfiq wa tubsiruni ma wal muntamina Mm. aji ak ñi nga xam ne ñoo askanu li xisbi naa oh. suñu xisbu mm. yéen nag ma dimbalee yow yonent Muhammad mm. ak képp ko askanu suñu ñun de manaahija xaqal xaqi ñu topp yoonu dëgg dëgg ji dëxëran di rek jamono xaq bu njëkk bi mooy yonent Muhammad beneen xaq yàlla de mu abadan mu nekk lu ab nekk aba abadan mooy mu abada mu nekk lu dabatewu mu abadan wa tahdiyanaa yéen nag ñu jubal ñun ñëpp ñu ngi wax amin de nahja rashaadi yoonu njub ay himatan ñu nekk ay kuréel yoo xam ne li ahli tuqaa dañu nekk ñooñ ragal yàlla wal bawsi nekk ñooñ texe jëndan ñu nekk soldaar yoo xam mu jënd la ñu prépare la mooy ñu nekk ay soldaar yu dëgër nga xam ne yëngut yëngut jamono duñu bu ñu du ñu a toxal daal mm-hmm. ñu yaakaar ne moom mu ñu naa nag moom isa ma réexu maa la maa woo mm-hmm. am na ñu loolu mm-hmm. am na ñoo xam ne léegi boo ñëwoon tagaleen benn un million ñu changé seen discours boo ko dégg ay yàlla xam na ko bàyyi dafa wax benn benn sëriñ bu mag ci dëkk bi fii sëriñ bu ponkal loolu mu waxtu dam bàyyi na ko na ñu ngi nii dem Senghor waaye buñ fexe mukk ba Senghor génne ñu suñ gëm-gëm yi nañ nekk doj te ñu ne ko yow koy doj kee yor yaa ko mën nekk ñu nay xob dañ moom ban yore yaa ma nekk ñu ay ay xob lañ mm-hmm. nga xob moom fu mu garaaw naa oustaz Ahmed laa dégg moo ko mm-hmm. bàyyi wax ko sëñ boobu bu mag boobu mm-hmm. mu ne ko mu ne bàyyi doj yow kenn yaa ko mën a nekk te boobu bàyyi rek am oto ci otom la la gars yi dugg diw ak diw ci oto bàyyi lañ dugg ñu war ci code euh, pénal yeeg euh, code euh, familial yeeg xam ne ko gars yi waxee seen ko nañ fexe nekk doj ñu ko doj yow kenn yaa ko mën a nekk ñu ne ay xob lañ comme nag xam nga ko comme moom nga yoo xam ne na wala baal ñu ngi leen tudd si ay ngóor jigéen lu tax dañu nekkul jindan mu jënd dem salaatu wa taslimu alal man samat bihi julli ak sëlmal yenam nekk ci nga xam ne samat bihi tudd na ko mooy si sidina Muhammad jamial wara mboole mbindéef yi wa sax bi ak waa këram wal aali ahmada ak waa kër yonent Muhammad wa sax bi mooy ay saxabaam wa ah, wal aali ahmada ak waa kër yonent Muhammad alayhi salaam ak xadra miqdaara alayhi